Sénéguindia. Savon pâte, savon poudre, savon dur, 100% naturel. La main, l'hygiène et la propreté au quotidien. Mayonnaise, onctueuse et délicieuse. Alib, le goût naturel du lait. Ginny Ginger. Joker. voyez BHT, c'est l'expert de l'électroménager et des produits high-tech. Un décor, votre personnalité devient un style. Novotel, Regius, Japan Motors, représentant officiel Nissan. Sisters of Africa, la mode fait par nous pour vous. Fine Aiguille, le roi du sur-mesure. Sawan, Fashion Dress. Ibino Couture, au bonheur des dames. Boubacar Touré, recréons l'habillement. Manina Institute, salon de beauté afro. Yacine Prestige Events, traiteur événement de prestige. Momo le boutier leral.net ay xibaar ci tàng tàng bi leral.net ay xibaar yu wóor ak ay journalistes yu xarañ. L'Océan Atlantic City hôtel restaurant traiteur. Papa Gastro restaurant professionnel en gastronomie. Dream Cosmetics. Bisco Bisatco. voilà pour képp ku bëgg am samay actualité samay news xam si lan laa nekk abonnel ci chaîne YouTube bu Vibe Radio peace. nga ko fu la jigéen romb ndaanaan romb na la na xool nga ko loo gis li mu wala yow li ci xolam seen nga ko ni mu mel wala li ko yow moom nga yëg jigéen boo gis ni muy noppee noonu boogamum later. When i am booga boogamum later. وي وي مينا جليكا سمدو وي لو السلام عليكم وعليكم السلام ماغي جيغول بس مدون لاتي في لا دك وي في لا دك يا لالا سولو سي بون سي بون الله

di leen nuyu yéen ñëpp en fait man dama yor sama place di liggéey dégg oto bu freiné brusquement nit ñi di yooxu ma daw génn yem ci moom comme xale la tiit na ci laa ko récupéré teg ko sama place ci laa ko bàyyi ba mu dal ma laaj ko noo tudd mu ne ma Amina xam nga seen kër mu ne ma waa ma ne ko bu ñu demee di ma ko wan mu ne waa ci lañ ànd ma indi ko mu indi mu ko fii quoi ci laa koy soog indi maa ngi nag bu baax Amina, pourquoi tu es sortie de l'école Hein lu tax xaaruñu jël si. Jalika hein? mais Jali du nii loo koy yuuxoo doo leen bàyyi seen yi ngeen di fitna Qui, je pense que d'un nga ko sensibiliser ci li am mais pas di ko yuuxoo je pense qu'il est important que mon am dans son sac wala benn sacoche nom, prénom, adresse et qui contacter en cas d'urgence. Hmm. pour yéen daal yar xale dóor d'or, saga, xëtt la amoo leen benn douceur xale yépp traumatisé après ça ngeen bëgg ñu mag, am douceur ak yëg-yëg ah loolu nag mënul nekk mere naa la torop hmm. bon je pense que. Ça va, quoi. Oui, ça va. Tout est bien qui finit bien. waaw maïni, ngi nii benn xale rek laa amagoon waaw waaw defal ndànk maa ngi ñëw su ma rek après maa ngi ñëw benn rek laa amagul damay maïni maa ngi nii ñëw benn J'ai tellement eu peur aujourd'hui. Et tu dors si paisiblement après les Dieu. Je viendrai te chercher, peu importe ce que cela me coûtera. Excuse, C'est de ma faute. Désormais, je m'impliquerai dans la maison et je t'aiderai avec les enfants. <laughs> tu sais, je ne l'aurais pas supporté de perdre notre fille. Je suis un mauvais mari et un mauvais père. te chaque jour ma ñaan yàlla mu 做作业。 très angoissé, Tu as pu dormir, manger quelque chose tout de même. Je t'ai toujours interdit de venir à mon lieu de travail. Merci d'être venu. Je veux juste rester seul. J'ai du travail. Excuse-moi. Mais n'oublie pas que je suis ton client. Ton entreprise. Désormais, ton dossier ira à Maremdia. Je ne pourrai plus m'en occuper. nelawuma benn yoon tiit gi ma tiit xam nga ne xale bi tey bu ko dara jotoon duma ko mës a baal sama bopp ci àdduna mère Diagne ñëpp a tiitoon waaye nag yàlla wis na ci ndox bu sedd guy waaye nag yaay mbiram dafa war a góorgóorlu de lan la kër gu ne dafa am maram biraan te man biram mii mooy sama maram biraan ah waaye tey mu ngay góorgóorlu de te daal suba teel la yeewu ah dale ko liggéeyu jiwul doom ja jàngi defe na ndékkim daal lu baax nee dañuy yendu ji fu ñu yendu ji nag xaw ma ku dugg ci diggante jëkkër ak jabar ya tooñ bu ñëpp mën nañu féké seen xulo kenn du féké seen juboo te nag comme juboo dafa neex fu mu amee boole commencé képp ku ci waxon rek gàcce mo lay déssé ñu bari dañoo foog ne amul lu jigéen mënul baal jëkkëram loolu de ku ko gëm dafa fekk ni defkatu jàmm nga jalika ku bëgg sëy la ku mën a toppatoo ay doomam lañ lu mu mën ak lu mu mënul soo ba ngoon jot nga cay dox mbir mi kay mooy sama maram biraan rek biram maa ndeyam nag maa ko jur waaye xam naa ne baaxul guddi baaxul bëccëg sëkk na waaye lu ma ci man xanaa ñu jàpp rek bu ñëpp jàppee xanaa na changé. yaay booy foofu nga daanale d'accorduma ci ak yow Biram il n'a plus deux ans magum jëmm la boroom kër la te nag wax ji dafa frenkulaayu yi wax nga ni ka jigen ju bax la ju fonk seyam bu topoto ay domam te sax man lima ma jaaxal mooy sa diggante ak jalika neexuma ah defoo ko ci sa xol bi tafoko ci sa bop man de dama sik te nangu wet dama sik mi xam nga li ne sama xol bi man du ma tricher de lii nekk ci man rek laay wax Jalika dóoruma ko xasuma ko saagaawuma ko waaye yéen a ko wax sentiruma ko man maa sentirul Jalika aw benn yëg-yëg ci moom. <laughs> mais Diagne sentiruma ko ba kañ sentiruma ko boobu noonu moo fi war a jeex. tay jining ni ma jappé taf ma ci sa bop nu ko raw nga ko wara jappé janika té nak dama lay bañal lén ñu tok ba di yett buguma benn yoon nga ñaaw ci way dégg naa li nga wax ma jàpp si nga wax ma mm. dinaa li nga bëgg rek laa lay defal <laughs> Sénégal jëm kanam ci dara day ñàngal ñàngalu rek danga fàtte pël la. foog nga ni mère dina ma accepter. accepter tu parles comme si man ak yow dañuy génn bul fàtte ne sama xarit rek nga. ok en ana waa kër ga ña ndax yàlla ma gis la ngun nguni guddi rek laay dégg ci téléphone bi lu ma xam sax lu ngeen di wax rek en dégg waaye yow sax lanu rakki nga xaritam nga wala leneenam nga waaw xaritam la man ak moom ñoo bokk fi ñuy liggéeyee dama ne woon tey nag damay ñëw xam ci kër gi tamit bëggoon laa tàggu rek waaw dama bëggoon ànd ak moom pour ñu dem reeri reeri xarit ba ci reeri jamono ji day daa ba tax na doo wóolu kenn njaboot yépp a jaaxle waaye fexe rek looy ciy def lu ne nag ma ci xalaat raki nag magum boppam la lu mu bëgg a def def ko ci duma ko yëg waaw moom sax raki wax na la fii de maa fii ndeyam maa fi baayam mosuma koo wax lu deñ Yalla baxna nak yalla nañu yalla defal li gën man nak ma nga dem ci bir bismillah bismillah <laughs> yow yee eh, yow nek yambal nga de amul yow nga yambal kan tapet bi nga doon jóguñu dem grand ba jam non biram dal du nit mais waxuma dara xoolal Bo ci jàppul lek suba chantier bi du ag. comprendre ma heure bi mënuma génn damay rer. en plus sama chauffeur wàcc na Japp si rek nga jaar fi jël ci ko man ngay arranger je écoute j'appelle Aram et je te reviens moom it fan la sànni téléphone am c'est pas possible. ajjana lu xew. anam la doon woo nii mënuma ko jot hein tu vois cet imbécile de Biram hein i papa gros mot. ah problème mi may créer Moodu mécanicien moma ma doon woo léegi nii parce que deux jours a ngi nii oto chantier bi dafa panne mu réparer ko war ko livrer tok di xaar reliquat bi.

biram dafa tàmm lu bon kii dinaa ko dàq. waaw jëna soo yóbbuwul xaalis bii nii kan moo nar a perte. la mën nga ma defaral ma reer wala mënu defaral ma reer demuma. waaw jëna xanaa moo entreprise ba rek aller retour vite fait doo jóg léegi nga dem reer bi su la neexee sax ñun mën nañ la xaar wala boog ma may la soo ñëwaatee léegi ma réchauffé la ko li koy yàggul.

Dis-moi, qu'est-ce que tu as jamais fait dans ta vie Disons que je ne suis jamais sortie avec un garçon, ni avec un ami. D'ailleurs, que ce soit ou le jigéen. Non. <laughs> je suis du genre à être la première de la classe. <laughs> ok je vais t'offrir ton premier pas vers la liberté marchons. J'ai le téléphone bi Noura Noura il faut n'avez pas de dingue? nga maa papa Je ne peux pas ba jot ko Noura Noura reste avec moi Hein? Ligne ñu egg tout soxeetul dégg nga léegi Tu tu Noura Noura Noura reste avec moi savon pâte, savon poudre, savon dur, 100% naturel. La main, l'hygiène et la propreté au quotidien. Mayonnaise, onctueuse et délicieuse. Alib, le goût naturel du lait. Ginny Ginger, Joker. Vous voyez BHT, c'est l'expert de l'électroménager et des produits high-tech. D1 décor, votre personnalité devient un style. Novotel, Regius, Japan Motors, représentant officiel Nissan. Sisters of Africa, la mode fait par nous pour vous. Fine Aiguille, le roi du sur-mesure. Sawan, Fashion Dress. Ibeno Couture, au bonheur des dames. Boubacar Touré, recréons l'habillement. Manina Institute, salon de beauté afro. Yacine Prestige Events, traiteur événement de prestige. Momo le boutier leral.net net ay xibaar ci tang tang bi leral.net net ay xibaar yu woor ak ay journalistes yu xarañ. l'Océan Atlantic City hôtel restaurant traiteur. Papa Gastro restaurant professionnel en gastronomie. Dream Cosmetics. Bisco Bisatco. Vibe Radio. Vibe Radio. 102.3 102.3 le nouveau son.